bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa sallama ilay yaxaada bi nabiyil xasda wa fi basaatini uddimul xasda sidna li ma bëgg ñu di ko setantal mooy uh, jamono yu bokkul yi xam nga incha allah màggalu tuubaa mi ngi jub si njaboot gi di ci am ñoo xamante ni bi ci màggal gi bu ñëwee suba la dañuy jaar ci télé bi di maaj ba ca jumaa ja di ziyaare yu mel noonu amatul day dàkk ndax jamono bu nekk ak la mu laaj lépp luy nuru dérangement ci dëkk boobu wala di Touba wala màggal gi luy nuru dérangement lu nekk léegi loolu day dàkk du taam loolu yëpp day dugg ci cadre cadre nabil bi ma leen doon wax ci murid ak murid sadiq ak murid sadiq wan nabil ci jamonoy nabil la ñu toll lépp luy nuru dérangement ñun ci sunu wet ñu koy déranger kenn mbaa ñenn mbaa fenn yooyu day dakk ba tax na balaa màggal gi egsi dinaa wax ni nuy màggale te dama bëgg ñu xam ni daaru Muxti quartier la ci tubaa ni ko daaru Xuddus doone ak daaru Minan ku bëgg a ziare mën ngaa dem ziare ci ay teggin rek waaye amatul yenn bruit yeeg yenn rajax-rajax yi yooyu moom day dakk xalifa bii fi nekk tey lépp loo xamante ni bii mooy yar ak i teggin ak i warma ak respect lu ci nekkoon ci ñun dañ koo war dañ ko war a yokk lu am solo la te li may wax ñor na ma tey dinaa ko gën a leeral balay màggal gi incha allah Omar dinaa la leeral lenn ci ñi nga xamante ni bii ñooy homme d'État yi gis nga gis nga Ablaye Wade dafa doon koo xam ne ak lu mën a xew ak lu politique bi bari bari bari bari bari dund gi muy dund ko tedd ki dëgg la ndax loolu dafa yàgg ci Sëñ Abdou Xaadir la waaw te boobu Serigne Abdoulaye ta ngi fi loolu yàgg na moo tax fi mu toll nii daara waa réew mi war nañoo fexe fexe war nañoo fexe fi mu toll nii daal ba honoré ko ak nu ñu ko mën a defee même bu ko chef d'état bi deful itam waa réew mi mën nañ koo def Sénégal yi bu fekkee reconnaître nañu waxuma sax nekk gi mu nekk murid waaye bu ñu reconnaître li mu daj ci réew mi avant muy jot ci pouvoir beeg fukki at ak ñaar yi mu ci def ak yooyu yëpp maanaam li mu daj ci réew mi fi ñu toll daal mag la moo xamante ni bii wax dëgg yàlla bu dellusee ci réew mi war nañoo fexe ba honoré ko. waaw man loolu la sama xel nangu te loolu mooy ihsaan mooy élégance gis nga ñaar ñii di Moustapha Niass ak Tanor kenn ku ci nekk bindoon nañu saw tur fa ñuy bind tur yi ñi war a jiite réew waaye ñaare bu décret bi wàcc day am cause yoo xamante ne bi mën naa tax ñu effacé ko bind fa leneen gisoo Ablaye Wade bi nga xamante ne bi élection 2012 yi bi muy jub si booba turu Moustapha Niass lañ doon la ñu waajaloon ci fi ñuy bind tur yi waaye xam nga ban cause moo tax ñu effacé ko mooy événement bi amoon te ma doon solidarité xale yee te yore xeer wax moo tax ma lay kii changé ko <laughs> muy lu yéeme waaw Ousmane Tanor mi mus nañ faa bind turam mus nañ faa bind turam waaye toujours rek balay décret bee wàcc day am lu koy soppi waaw am na cause yu koy mën a soppi fii may wax ak yow nii itam ci jamono yooyu lañ toll fi ñu toll mi may wax ak yow nii turu Macky fa nekk waaye gis nga am na loo xamante ni bi bu ko deful bu desee ñeen fukki fan waaw bu décret bi wàccee bu moytul beneen tur lañ fay bind lii maa la ko wax na ko na te jàpp ko mhm. am na loo xam ne bu ko deful waaw bu décret bi wàcc ba moytul beneen tur lañ fay bind waaw nag moom samay mbir la wax dëgg yàlla <laughs> doonul loo xamante ni bi lu ma kenn yi wax wala lu may ci kii naa dafa am loo xamante ni bi dana koy sant ku tedd ki waaw nu ne la may yëgale mbir nu ne la may xamale mbir nu ne waaye daal fi ñu toll li ma bëgg mooy na ma ñëpp déglu ci vision idéale ci Bamba fépp waaw vision idéale pour le Sénégal ci Bamba fépp vision idéale ci Bamba fépp pour le Sénégal <laughs> te it bëggoon naa ñu xam ni gis nga ko tedd ki xasay di li muy bari bari bari bari bari bari rarement li ciy tudd Màkka ak Madina Touba gi li tax ñu koy faral di tuddul li nu jàng bu ne Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati waaw ñu xam ni tuubaat demee ci moom ak fi mu ko egg waaye xoola ginnaaw bu mu ko sance ba noppi ba jógee fa daanaka dëkkaatu fa waaw ba ni mu fa ñibbee waaye boo xoolee mbindam yi li muy bari bari bari bari li mu ci tudd màkk ak madina bari bariwul waaye ka juddoo màkk nag moom di gën ji fi waaw te dëkk maddina fi mu toll kooku moom fu mu toll mu ngi koy tudd moo tax man fi mu toll damaa toll ci tolluwaay boo xamante ni bii ku tedd ki laay gën a tudd waaw ku tedd ki moom fi ñu toll nii aw turam kenn du ko moomul mi ngi mel ni rek mi ngi mel ni rek nga doon jéem a tere ku xool jant bi mbaa asamaan si waaw mbaa ngay tere ku naan laa ilaha illallah mbaa ku naan allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ku tedd ki moom waaw faw ma koy tudd moom <laughs> faw ma koy tudd Touba su ma neexee dama koy yellu su ma neexee duma ko biral ku tedd ki nag dama naan jëre jëfe Serigne tuubaa ca kaw waaw di ko sante nu ne yooyu Omar lu mat di settantal la waaw na ma fekk ñëpp fekk ci bamba fépp ji rek waaw ak vision idéale bii ci bamba fépp waaw pour le Sénégal salaamualeykum wa rahmatullahi